ni sëriñ bi leerale tolluwaayu gàmmu ak na mu yëkkati ko lool ci téereem bii di Jazbul Quluub loolu nag moom ni ko sëñ bi indee daa yaatu lool du ci jazbu rek waaye bari na fa ko leeral nga xam ne sax jëmmi weer wi rek weer wi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gënee àdduna rek bari na lool xasida yoo xam ne rabihul awwal la leen tënke baa mu tënke leen baatu mawlid daañu leeral sax xasida ga nga xam ne moom da ci doon tàggatoo weeru rabihul awwal wa bu dee jës bu nag moom lam wax ca mbirum gàmmu ma nga tàmbalee ci mawliduhu muazzamu mubarakum muxtaramu tanzimuhu yanxatimu ala dabi taqaddumi daal ne juddu yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam muy gàmmu lu yàlla màggal la lu màgg màgg la te luñ war a fonk la luñ war a warmaal la mu ne ñi nga xam ne nag ñooy kilifa yi jiitu yàlla jiital leen ñoom ñoo ci war a jiitu ñi leen topp topp leen ñu ànd dundal gàmm warmaal ko fonk ko daa ci teg taazimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati bi hisdiyadul minnati li muxlisi muazimi nee na màggal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te teg ko ci sunna nag li mu jublu sunna mooy ci lépp loo xam ne yàlla gërëm na ko mel na jàng alquran wala xasida wala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa wala di ko tagg wala sax di nettali siir siiraam wala di ko déglu ci gàmm wala sax di leeral sunnaam ba ku ca bëgg aw aw ca yooyu la jublu ci sunna mooy defee ko ci anam goo xam ne yàlla dana ko gërëm ne loolu ku ko def tey ku koy defee noona dalay wommat jëmale aljanna nee na it ku koy defee noona di ko sellal yàlla rek tax aw na ci yoonu aljanna te yàlla dina dolli ay xéewalam mu teg ci ma yuazim mawlida nabiyina baabil huda fala yuxaasabu gada faxtariman wa azimi nee na juddu yonent bi day sallallahu alayhi wa sallam ku ko màggal te màggale ko ne yàlla gërëme kooku bu ëllëgee yàlla da koy mbaa yàlla du ko xisaab mu ne kon nanga ko warmaal te màggal ko teg ca fa ma yuxadim mawlida xayril baraya ahmada fakka shahidin shahida badran bi xayri wahami na judd gi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko màggalit def na lu rëy rëy loo xam ne day mel ne ku teewe woon badar xare badar ñu bari ngëneel lañu ku màggal nag juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day mel ne teewe woon na badar ba daanoo ca xare ba ba yàlla jël ba kanam ca xare ba tiyaaba ju tol noona lay amee fa kullu man anfaqa fi mawlidihi almusharrafi maalam bi gayri sarafi walaw bi qadri dirhami فإنه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى مفهمي day wax tolluwaaye nag dundal sa alal ci guddi gàmmu mu ne képp koo xam ne dafa am alalam bi lew daat koy def ci guddi gàmmu ak donte sax ab dërëm la toll lu mu tuut tuut rek ak donte daa toll ne ab dërëm jëf ji day rëy lool day mel ne koo xam ne daa fekke xareb Xunayn ak xareb Badar jàppale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci taxawal diine ji tiyaaba jooju lay amee ci koo xam ne daa jël alalam def ko ci guddi gàmmu ak donte sax ne ab dërëm la toll fa man yuazim mawlida nabiyina baabil huda fala yuxaasabu gada inda alxisaabil mufhimi dafa baamtuwaat loolu ne guddi gàmmu ku ko màggal bu ëllëgee kenn du ko xisaab yàlla du ko xisaab فكل من قد حضر مولد أفضل الورى محظما مبشرا بسكر أو لحم فإنه قد ظفر بما يديم البشرى ولا يلاقي ضرر يوم اجتماع الأمم ne koo xam ne dafa fekk guddi gàmm màggal ko te màggale ko ci bégal jullit ñi ci lépp leen di bégal ci xeetu bernde moo xam ñamu sukkar la wala aw yàpp la wala lu mu doon rek mu daal tey bégale jullit ci bernde yooyu yàlla dana ko defale loo xam ne dana ci amee mbégtem tey ak ëllëg te bu ëllëgee ba ñëpp daje muy bis penc ba dufa gis dara lu muy ragal ba dara lu koy lor fa man taaman hayya liman lahu qad xara mubajjilan fa xaba xayraati ahlil ximami maanaam nee na mbooloo may jàng gàmm ga ne kuréel jàng wala mbooloo ma nga xam daal ñoo féetoo njàng ma koo xam ne da leen defaral aw ñam jox leen ko nga xam ne def na jëf ju baax yu baax ya ko daan def te nay séntu fay ko fay gu toll ne gam leen daan fay teg ci waman ala cheyin qara mawlida sayidil wara tabarrukan fa sayara numu waxu bil fadxami ne mépp mbir moo xam ne dangaa bëgg mu barkel bëgg ala dolli ko mu fulute barkel da ngay da nga ciy jàng la ñuy jàng ci gàmmu ga mel ne bu dee xasida gu ñuy tàgge yonent bi la ñu koy baaxoo jàng ci gàmmu gi wala salaatu ala nabi ya nga jàng ya nga jàng ci guddi gàmmu nga tifliko ko ca mbir moomee yàlla dina ko dolli te dina ko barke la wa in xalaa ma in xuri mawlidu xayril bashari fa shurbu bil mutahari yakuffu kaydal murgami yunawwirul qalba sharaab min dalika al maa bil mujab والقلب يحيي دون عاب وعن شقاء يحتمي in بو nee ام boo nga jàng ci lañuy jàng ci gamu min mel yéen jàng ba sax nga dem ci kurel gi jàng rek tek fa sam ndox ñu tifli la ko ci lañuy jàng ndox momu neena ku ci naan dana mucc ci pexem shaytané ku ci naan ti yàlla dana leral ab xolam ko ci naan it ab xolam gëna dund bu xol yee dee moom xolam du ca bokk te it ne naan ci ndox moomee day koy aar ci texee di teg ci ixyaaw mawlid al bashir يحمي العيال والديور في شفاء للصدور لكل هاد ينتمي من نجار نيو غامو دوندال غامو دا يموت سي كاكوي ديف رك واي كيب كو خام داي دوندال غامو يالا صاح داكوي ارالالل اك نجابوتام aaralaaleel ko ay këram ak lépp lu moom lépp luy alalam day saafara ab xol tawati xolit dundal gàmm da koy saafara